situation bu posé wu. loolu euh, je ne m'adresse pas seulement au ministre euh, de l'éducation oui. aux que vous êtes. Oui. à lom politique que vous avez été dans les espaces euh, universitaires et euh, scolaires. dafa am tey situation xale yoo xam ne tey. dañoo bokk ci de manifestations non autorisées. ñu jàpp leen. ñoom ñëpp génne nañ leen. Ah? ñu jàpp leen est-ce que xale yooyu. Mhm. waruñ leen yar expliquer leen sensibiliser leen. plutôt ko ñuy ñuy briser seen avenir di leen détenir dans des prisons xam nga bu ñu xasee ba jàpp du man maay du man maay gérer. mais loolu volonté état waaye déglu rek mais ñoom ñëpp génne nañ leen on a joué on a comme ministre de secteur j'ai parlé avec des ministres responsables on les a sortis ñenn ñi nga xam ne ils étaient dans des conditions extrêmement dañ leen di jàpp ci ay affaires yi on a appelé leurs parents ils étaient pas majeurs remettre leen à leurs parents en leur disant yi jàpp leen là ne se pose pas de problème il y a eu euh, benn problème de mésentente sur benn élève bu nga xam ne tey lu ñu identifier ne élève la bu nekkoon de la fausse mais quand on a su on a libéré à ce niveau là il y pas de problème il y a des problèmes aujourd'hui avec quelques enseignants qui ont euh, été pris euh, en train de manifester de façon violente en ne respectant aucune règle ils sont considérés comme tout enseignant am na droit am appartenance politique am na droit manifester l'essentiel bu mu instrumentaliser les élèves non un y a un instrumentalisation des élèves un aussi bu fekkee da def manifestation bi ne pas autorisée mbaa nga def ay casse c'est pas dans le cadre de l'école amul benn enseignant bu ñu jàpp dans le cadre de l'école parce que dafa am une activité revendicative au niveau de l'école amul mbaa da nga dem grève ñu ngi dem grève fi ñu toll nii en mettant en mettant en faisant avec des revendications politiques en signant même des plateformes politiques mais arrêté wuñ ci kenn la réponse sera administrative. c'est-à-dire non la réponse sera administrative. sera administrative c'est-à-dire. veut dire on gérera cette affaire-là comme les textes le permettent et la la jurisprudence dans, dans l'école ils savent très bien qu'on va gérer on va pas permettre à euh, des positions des positions politiques portées par une partie. Euh, di dispositif puisse aliéné comme ni nga ko waxee léegi yàq école bi kat nit ñi xale yi duñu jàng mbaa duñu def examen duñu ko bàyyi dinañu organiser jàng bi de telle sorte que xale yi dinañ jàng dinañ def seen examen et loolu gouvernement du Sénégal daf ko signé moom ak partenaire yëpp syndicats yi signé yëpp dañoo signe ak ñoom ne leen ne dañuy jox dañ leen di jox ay milliards yu bëri plus de cent quatre-vingts milliards pour ngeen fexe xale yi jàng dans de bonnes conditions dans la paix sociale. ça mais si cette paix sociale là elle est remise en cause. non le gouvernement reviendra reviendra sur sur, sur yi mu def ñaari parti ñoo signé ku ci nekk da ngaa war a def effort. non je veux dire non, chaque fois eggaguñu foofu des menaces de manifestation. non amee les écoles vac loolu jusqu'à quand. non non bonne solution ngeen ciy indi. non la solution du pourquoi nga bëgg a centrer affaire bi ci école yi école yi c'est parce que c'est très compliqué c'est visible te baaxul mais quand la situation se les sénégalais ñooy jàpp seen doom mbaa du liggéey.